le ministre euh, actuel ministre de l'industrie Mustapha Diop. Mhm. nga xam ne moom ñun ñoo bokk benn quartier nos deux familles c'est pratiquement une même famille. d'accord nos deux familles c'est pratiquement une même famille ñu may xam ma xam na li may wax. d'accord euh, kër papaam bi tudon Baye cherno Diop ak sama kër maam ben tapatu zinc moo ko séparé nga xamne bu la neexee sax pousse tappaat bi jaar ci biir donc.

soxla ko woo ko euh, voilà. mais euh, c'est quelques boo xam ne moom il me comprend. parce que dafa très souvent que ni.

da nga doon football. j'ai joué au foot. Hmm, ban poste nga doon joué. absolument ok def nga si ay jaloore. non du tout. <laughs> footballeur xale quoi. ok le ministre de la lay Moustapha Diop c'est un excellent footballeur. ah oui ah oui il jouait bien au foot. et d'ailleurs je me rappelle quand bi ñu bi ñu gën a nekk xale daan jouer suñu quartier suñu ñu daan joué ba série pénalité yi des ci moom Moustapha la ñuy tànn pour mu dóor le dernier tir. Hmm. tous les jours c'est lui. ok mu dóor le dernier tir. Hmm. léegi et c'était assuré. ah oui li li ko daan assuré sax laa la bëgg a wax. Hmm. mooy bu tegee bal bi war a dóor le dernier tir ñun ñëpp dañuy jël suñuy yar taxaw. di waaj lan boo kay rafetlu song la. <laughs> te moom dafa doon am fit jël ko. j'espère que dina ma seetaan et parce que mos naa ko reeloo mais dañuy dañuy am na sama benn cousin bu tudd Mandela Ndas lañ daan woowee. mi ngi mi ngi Europe léegi moo ko gënoon yab. Hmm. mais dañ yab la ñuy jël taxaw. Hmm? ñun ñëpp di xaar. ku raté. ah non du ko raté mooy dóor le dernier hmm. dugal gagné. moom lañ koy jox ne ko nag boo ko raree ñu ngi sa kaw. Hmm. ñu dem. musul raté. non ah non ah. yu mel noonu en tout cas fàttaliku ma ko. ok ok ñun ñun c'était comme ça c'est-à-dire que euh, mm-hmm. euh, ay ay xale yoo xam ne kër gu te quartier bi ñu dëkk muy ay famille yu mag kese la da ngay gis ñu ne la waa Ñangeen mooy ñun parce que man sama sama ñëpp sax. Mm-hmm. ñu ne la waa Njóobeen mooy sama kër benn maam bu nekk à côté. ñoo ne waa kër Sidi. Mm. mooy kër ñoom euh, Moustapha Diop ak ñoom. Mm. parce que seen maam mooy Sidi Diop. ok Sidi Diop doom la ci Lat Dior ou quelque mm. ñu ne la waa kër Sidi Diop euh, après ñu ne la waa Ngaayeen quartier bi noonu la demee. nga xam ne ñun bu ñu daan génn. suñu quartier bu ñu daan génn ñun. boobu xaw ba xam naa ñii dinañ ko xam. <laughs> football entre quartier ñu ngi ko daan woowee attaquement. d'accord dañ daan dem attaqué ji benn quartier mooy dañu dem football yi ak beneen quartier. mais bu ñu daan génn ñu di dem. mais euh, ma chère da ngay gis contingent bu ma trent gosses am hmm? ah oui da ngay gis lu ma trente gosses àndandoo ne ci mbedd mi yor bal. Hmm. di dox di dem. mel na ñuy xeexi. mel ni ñuy xeexi <laughs> alors dañuy demal football bi rek match ñëwaat quartier la boo xam ne également doo daa amul woon différence d'âge maanaam amul ay ñi ñooy mag ñoo xam ñëpp dana. ñëppay ànd voilà. man lu daan yëpp dañ daan ànd ak ñoom. buñ daan dem jouer ji ku ñu gagné doo yóbbu xaalis